jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ba tey yéen ngi ànd ak seen télévision As-Samadiyya TV télé bi nga xam ne bi mu xëyee ba nëga ni mi ngi topp ci ndigalul sëriñ bi di Cheikh Mountakha Mbackeem sëriñ Bachir xam ngeen ne tey ci alxames ji la sëriñ bi santaane ngir ñu jàng alxuraan ci mboolem jumaa yi nga xam ne rek ñoo nekk ci biir dëkk bu tedd bi di Touba ak fu ñu mën di nekk rek te ñaan jàmm ci xol yi ñaan jàmm ci xel yi ñaan jàmm ci réewum senegaal ak nawet bu barkeel ginnaaw bi ñu jógee nag ci jumaa ju mag ji di jumaay Serigne Touba Xadim Rasoul ji ñoo ngi fii ci pàkk bu tedd bi di Daarul Minnan eh, fi nga xam ne moo di pencum Serigne Bachirou Mbacke ñëw nag mbokk yi ngir wan leen nataal yi nga xam ne moo fi war a bàyyi koo xam ngeen ne fii itam mbokki taalibe yu takku teew nañ fi àndandoo ñoom ñëpp nekk ci ndigal li muy ndigalul Cheikh Mountakha Mbackeem Serigne Bachir. ñoo ñu kon mbokk yi war a jébbal kàddu lenn ci jëwrin yi kon ñu jël sëñ euh, ñu jox sëñ Moustapha mu ubbil ko ay kàddu bu ko defee nag ñu soog a jox sëriñ Bachirou mu yeggale kàddu yi incha allah kon Cheikh Amadou ñu ngi lay nuyu di la di leen ndokkeel ci ndigal li nga xam ne moom la ñu ànd di ko jëfee te muy ndigalul Cheikh Mountakha Mbacké fii ci pàkk bu tedd bi di Daarul Minaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, bokki julli di bokki taalibe yi. Assamadiya ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen tatagal di leen sant bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen nekk te liggéey bi muy yaatal ndigali Sëriñ Tuubaa yi ak di ci soññee ak di ko wane jàpp na ne loolu moo leen tax a ñëw fii fii nag da ngeen ñëw ci bis bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha daf ko dig dig digle ndigal itam di ndigalal sëriñ Touba ci bis bi sababu ndigal li nag ma waxal na ko boppam ndax sëriñ Touba daa waxoon ne saa yu ndi saa yu ngeen demee ba meloo jamono di leen bëgg génn ci yàlla di leen yóbbu ci lu naqar yàlla sunu boroom su boobaa ni ngeen ko daldi delloo seen bopp fasaasa yaakaar naa noonu la ko Cheikh Abdoulaye laxaat waxe woon eh, dellu lool nit ñi ci yàlla nag yaakaar ne dara jiituwu ci alxuraan kon suñ demee ba jamono yii ñun ñi dund ci waxtu yëpp gis nañ loo xamante ne xamuñu ko kon dafa benn dafa mel na ñu ngi bëgg a eh, génn ci suñu baax sun baax nag mooy nekk ci yàlla waaye nekk fi sëñ Touba ak ndigali sëriñ Touba yi loolu moo tax nag Cheikh Mouhamadou Mountakha itam bi mu jegee loolu mu daal di ñuy bëgg a delloo ñun ñëpp fañ fañ nekkoon te mooy nekk ci yàlla nekk ci ndigale sëriñ Touba yi kon loolu moo tax mu santaane bis bi bis bi nag bi mu ko santaanee bokki taalibe bi yëpp am ci taxawaay jóge ngeen ci jumaa ju mag ja gis ngeen fa mbooloo ma nam fa nam nam fa toll ngeen ñëw fii ci Daaru Minam waaye ñu wóor ñu ni itam ne jàkka joo dem wala jumaa da dem ci biir réew mi ak sax ci bitim réew rawatina ji biir Touba gi mbooloo moom ngeen fay fekk loolu taxate fii di pàkk bii di Daaru Minam itam gis nga ni nga xamante ne ndoolu mbooloo mi toll ñoom ñëpp ñu ànd maase bañ xëyee ba nëg ni si ñi ngi ci ndigal loolu maanaam ñi ko man ñëpp ñu ngi ci alxuraan ji ñi ko mënul ñi ngi ci xasida yi ñi nga xamante ne nii mënuñu loola te mën a nekk ci seen kurus itam ñi nekk ci seen kurus ñi nga xamante ne nii itam mënuñu loola wala ñu féetale leen wàllug mankale mbooloo mi itam ñi ngi ci ñi nga xamante ne nii ñooy toppatoo ñi nga xamante ne mbooloo mbooy ñi fi nekk yëpp itam ñi ngi ci seen biir gis ngeen nii maanaam ñi dem ba kenn ku ci nekk fa nga nekk amatul lenn looy soxla wala loo mën a soxla itam maanaam fa saasa dana la daal di fekk foofa kon loolu lañ lañ lañ xëyee bañ xëyee ñun ñëpp ñu xëy ànd maas nekk ci ndigal loolu incha allah ba ni ko ndigal sëriñ bi dig ci ndigalal Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye ci kilifteef ak jëwri ni sëriñ Modou Abdoulaye ñu di leen xamal ne liggéey bi ñu fi doon liggéey ci suba ba léegi ci muy ndigal li yàlla dogal na bokk yu takku daje nañu fi jàng nañ fi limu kaamil bu yéeme lool it ak i xasida yu bari sëñ Modou Abdoulaye yabaloon sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou ngir mu ñëw jàng xatmu bi waaye ñaanal bokk yi waaye itam yëkkati fi kàddu yi cant yu jëm ci bokk yi kon sëriñ Moustapha jàng na xatmu bi ba noppi kon ñu jox ko micro bi mu jottali kàddu yi sant yooyu nga xam ne moo jóge ci jëwrin yi ci turu Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Abdullah mi nga xam ne mooy jëwriñ jëwriñu penc mi mu joxoon nu ndigal ne bu ñu jàngee ba noppi dañ fi ñëw jàng xatmu bi di sant mbokk yi fi teew yëpp kon ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mamadou Abdoulaye te di leen sant bu baax ci jëfe gi ngeen jëfe ndigalu sëriñ bi xam ne taalibe moom loolu rek mooy warteefam bu ñu ko ndigalee na def li ci des nag ci sëñ bi la desee suñu jaan wàcc na digal na nu def nañ moom moo xam la tax mu doon ko digle moo xam ne it lam ci yéene ak lam ci bëgg noonu loolu lépp duggaat nañ ci biir yéene sëriñ bi ci am solo rek mooy jëfe ndigalu sëriñ bi am nañ tawféex nag defe ko ni mu ko bëggee woon kon nag noo ngi sant yàlla bu baax di sant ci fi teew ñëpp ci turu Cheikh Mamadou Abdoulah di ñaan rek ñu daje ci ak tawféex seriñ bi gannaaw digle ne nu def daal ñu si des ñaan rek mu nangul jëf ji lam ca bëgg nag moom moo ko xam ñun lépp boolewaat nañ ko dugalaat ko ci biir bëggug sëriñ bi ñaan rek nañ ci daje ak tawféex sëriñ bi rek sant nag mbooloo bu baax ci wuy si gi ñu wuy si ndax gannaaw sëriñ bi dafa joxe ndigal te moom fii mu la nekk ci biir kër gi kon ndigal loolu mu joxe kenn waru ci woon a jiitu waa penc mi kon nag mel na ne ñoom xame nañ ko loolu ba tax na jëfe nañ ko lu kawee njort kon nag noo ngi ñaan rek sëriñ bi nangul no te daje fi ak tafeex sëriñ bi ñu leen di sant bu baax ci turu Cheikh Mamadou Abdoulaye bi nga xam ne mooy jëriñu penc mi ñaan rek suñu borom lépp lu ci sëñ bi namm rek al tax mu di ko deflu rek suñu borom defal lu ci ko lu kawee njort di sant sëñ bi itam ci euh, lii mu sembu te xam nañ ne moom lu lu lu gën a war a yoon wi rek ak lu koy doxo rek moo ci moo ci moo ci yéeneem ak bëgg-bëggam kon nag yàlla na sàmm borom defal tawfeex defal ko ci mooy itam lu mu ci yéene ba ba mu weesu foofu ba ba fi mu ko bëggee daal mu mu dem ba am ci lu kawe njortam weesu foofu yëpp yéen ñi ci liggéey kon yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax te leen gën a bu baax jërë ngeen jëf loo rek lañ ci doon waaw